mbokk yi tey la tey ci diggante équipe nationale lelle ak équipe nationale e U1 di Sénégal ak gine te jii la ñuy daje ca Bafoussam fële ca Cameroun yéen i kaay bi di Walf Quotidien ne jongante boobule di Sénégal ak Guinée Aliou Cissé di entraîneur sunu gaynde yi nee na coronavirus bi tax na la mu bëggoon ci équipe am yëpp du ko am maanaam équipe bi jeng lay am di doxe benn tànk waaye dina def lépp ba jéggi gine ngir mën a dem ca huitième de finale Kaba Diawara di entraîneur bu Guinée ne matchu Sénégal Guinée bi wute na ak yeneen jongante yi ndaxte dafa spécial boobu la jongante di Sénégal ak Guinée yéenikaay bi di Sud Quotidien ne ab jër bi la waaye passion bi ak xët-xët gi bari na ci bu weesoo xëccoo ngir jël place bu njëkk bi ci groupe B bi Kaba Diawara ak kii di Aliou Cissé xëccoo bi ak wujje bi dina tar seen diggante ndaxte ñoom ñaar ñooy ñaari entraîneurs yi ñoo bokkoon nekk ca Paris Saint-Germain Naby Keita ak kii di Sadio Mané jamono yi ñoom ñooy jongante ca Liverpool loolu nag di wane ni jër bi bii du di joueur Sénégal yi amee coronavirus yu na Aliou Cissé ne dina am déséquilibré ci yéenekaay bi di Le Soleil ñu ne dinañ def lépp ngir mën a egg ca huitième de finale Kaba Diawara ne match boobule lépp ci dal lañ koy joué maanaam ci fair play yéenekaay bi di L'Observateur na waaye Seny Dieng bu deful nank te jii mooy wéy di doon gardien de but ci boobule jongante jongante boobule Sénégal da ko war a gagné ngir mën a dem ca huitième de finale loolu la yéenekaay bi di record wax estat ne li war kay mooy dëggate équipe nationale bu Guinée jaar seen kaw egg ca huitième de finale kan mooy joué finale ci élection locale yi loolu jar naa bi di Walf Quotidien élection locale yi mooy benn élection boo xam ne mën nga caa wote ñaar ba ñetti yoon kon du doon élection yu yomb ndaxte benn sànni la bu mën a jam ñaari picc wala ñetti picc moo tax gars yi di xët-xët lu ne ñu koy wax ngir mën a dem ci yooyu élection bokk na ci Mame Mbaye Niang mi nekk ci yéenekaay bi di Vox Pop moom ña muy wujjeel ci élection yi ma ngi yëkkati ay xeer di leen sànni moom candidat ville bu Ndakaaru Mame du ci dara du kenn ku dul Abdoulaye Diouf Sarr ci yéenekaay bi di l'évidence nee na képp koo gis mu naan moom mooy candidat wu nguur gi ci Benno dëgg candidat ngur gi kenn la moom dafa jàpp ni moom mooy càppaaculi bi waaye bu ñu wàccee ci terrain bi nana xam ne dinañ fa fekk kii di Soham El Wardini moom Soham Wardini yéeni kaay bi di critique ne charte non violence bi waa kidis taxawal doon ci woo bëri séq élection locale yi ngir ñu siifee déggoo bind dëggal ni ñoom lépp li fitna ak fa mu féete duñ fa teg seen tànk bu dee am na ñuy tendeefal ak di layam-layam yi kii di Soham Wardini yéeni kaay bi di critique ne moom signé na ñi signéwul nag kii di Abdoulaye Diouf Sarr sànn na leen xeer ci yéeni bi di source a loolu lépp nag ngir mën a jot ci Ndakaaru Ndakaaru mel ne xëccoo bi dina tar dina mel ne diggante Lat Joor ak tubaab ba yéenikaay bi di laa Tribune ne ñeent ñoom ñoo koy xëccoo di ñeenti kuy naam ñaar sax duñu bokk mbalka waaye ñeent buñ ko bokkee naanin wa dina gën a ñaaw yéenikaay bi dee média bi ne am na ay outsider ñoo xam ne jamono yi seen wërsëg bariwul gunge leen fi nekkee buñ gañee dina bett ñëpp bokk na ca ñooñu duduwaat Mame Mbaye Niang waaye bu dee am na ñun am yaakaar ci ñoom du kenn ku dul Abdoulaye Diouf Sarr force tranquille tekk lay def maanaam ndox mu sedd la di rey teñ kii di Barthélémy Dias moom nag bari xët-xët liggéeykat loolu kii di Papa Diop nag moom mooy borom bilan bi bilan bi la jël def ko campagne bu dee soom war di ne la mu bëgg mooy delluwaat ca bureau rek toog riigu ngir nekkaat maire bu Ndakaaru maire bu Kaolack la bëgg a doon moom kookale di Fadel Barro bu mouvement Y'en a moom Fadel bëgg àpp Kaolack bu bees ci yéenekaay bi di Le Quotidien mun a takk fitam mooy li ko yóbbu ci yotu maire bu Kaolack mu ne la yitteel mooy assainissement aménagement urbain maanaam seetal ba yeesalaat ko waaye a marre a te lii di Kaolack ndàngaan bëgg googu ñu ko bëgg nag moo tax liggéey bi ñu waroo ak réew mi defuñu ko yéen kaay bi di la mandaane xoolal ministre yi rek ak yenn ci directeur yi nekkee fii ci réew di Sénégal jamono yi fa leen i xaar ci liggéey bi boo demee doo leen fa fekk ñoom ñëpp génn seen biro dugg ci campagne bi ñi nag ñoo jara simil sapo seen njariñu bopp lanu topp bàyyi njariñ li ñu bokk ak réew mi yépp lépp rek ngir bëgg a doon maire bëgg a doon maire nag yéen kaay bi di enquête ne moo tax gars yi dugg ci lu ne xonjam xar fa fuufa ak njabarante xonte bi mel ne tullek màlle ci géeg politique bi bi Samba Rose Maymuna ba ci maam Kumba Lamb bokk na ci ay jinne yoo xam ne ñii di candidat yi da leen di seeti lépp ngir bëgg a falu Laas Badiane candidat na moom ab ndijaayam paralysé na ginnaaw banu ko tabbee ngir mu doon candidat yeewi askan wi boobaak tey fu mu toog mënu faa jug ba yootu mairie bu dee Moussa Ngom di ab sëriñ mu ne gars yi dañuy xon bay xon électeurs yi wote mën nga am yéene woteel ab Abdoulaye Bob ci élection yi dem ba ci biiru urne ya di mbañ gàcce ya yi wëlbatita xel nga woteel askan wi wala bëgg ku leen safa ba woteel leen lépp la ñuy jiim ngir mën a falu moo tax gars yi xar fa fuufa xonjam ak xon waxuma la candidat yi seen biir waaye dañuy xon ba xon ñii di électeurs yi jëm tam min gàccee waaye tamit sàcc gi mel na tulleeg man la ci élection yi moo tax Ousmane Sonko di suumal ay responsable Benno Bokk Yaakaar yi bëgg a sàcc élection yi ca Ziguinchor ci yéeni kaay bi di libération mu ay carte électeur la ñuy fraude foofu le ci a tëggee ña nga ca diggéen sor ngir bëgg sàcc élection yi waaye Ousmane Sonko dafa mel ne defetam rek lay waajal ngir buñ ko dumaa rek mu ut fa mu jafandu loolu la Ibrahima Mendy wax di responsable APR ca diwaanu Ziguinchor ci yéenekaay bi di Libération yéenekaay bi di Libération ne juróomi téeméer ak ñeent ci ay millions ci kopparu CFA la ñu sàccee ci Avicenne ñooñ nag di sàcc danoo royul ci jikkoy kii di sëñ Adi Touré doon bu rëy yéenekaay di Direct News ne ku kàngam ku xereñ di sëriñ Adi Touré bokk ci ñi gën a doon kilifa fii ci réew di Sénégal sëriñ Abdou Aziz Touré doon doomam ci yéenekaay bi bi di direct news waat kitaab bi ne Seyni Adi Touré daf meloon rekku yàlla sol ndaxte kenn mënta dut baaraamam ne mën maa jàngal kii di Serigne Adi Touré jàng na ba jàng xamxamu xamu jëm ci wàllu ko jaww ji di mbiri weer ak ñoomin seen mu ne lépp lu mu amee moom Seyni Adi Touré ci barke Seydi Hadji Malick si la ko amee moom Maodo jumaa ja ca Fass Touré ak nan ko tabaxee lépp ci xereñuk Serigne Adi Touré moom Serigne Adi Touré doonoon ab baykat bari na ci ay hectares yoo xam ne ñu ngi koy bay di ko góob ca Touré lépp ci barke Serigne Adi la amee moom nag turam di fay ndax jëfi ñaawteef yi mu def jaare ko ci patronam bi ko doon liggéeyee yéeni bi di réew mi quotidien kii ab mécanicien la boobi la mécanicien dafa saboté oto patronam bëggoon ko faat maanaam frein ya la dagg teg ci crevé pono ya peeral ko ngir bu ko patron ba dawalee jaare fa faatu ñu ne dafa accidenté ginnaaw ba ko patron ba dàqee waaye patron ba mooy li ko ëpp bopp ndaxte lépp mujj naa feeñ loolu nag mooy dëggal kat yu naan yàlla du reel kenn noonam te nag du bind ci fanweer rey ci benn fan